yéen a war a yor Sénégal ndaw yu mel ni yéen yéen a am doole pour yóbbu senegal mu jëm kanam metti na nag waaye lii jaru ko jaru ko donc ma leen di ñaan rek ngeen bàyyi li ngeen nekk di def vraiment gaal yi ngeen di jël ngeen bàyyi ko xam naa ni dund ngeen lu metti boo leen delloo ngeen waxtaan ak seen ay xarit seen ay dëkkandoo ngeen wax leen nañu bàyyi li ñu nekk di def Kita itam Rus leen ruus ñibbi seen kër bu leen ruus ñibbi seen na da ngeen dem ñefe daanu seen doole am jàppale seen waajur waaye yàlla dogal na leneen bu leen ruus ñibbi seen kër donc loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen masaw vraiment ngeen ma tamit ci 进。